3 fi may duggee ak yow mooy xale yi nga xamante bi nii ñoo nekk biir géejawaay di def ay performance donte ñëpp say rakk lañ ñëpp nga yéene jàmm aussi tamit ñoom ñëpp ñoo la bëgg mais kan nga ci am yaakaar ne war naa mën a téye ji làmb ëllëg wala war naa mel ni guy gi war naa mel ni Balla Gaye la dëgër Eumeu Sène Modou Lo Tapha Tine Ama Boy Niang kan. waaw pasal dafa am lu ma fàtte Moussa Guy gi ñu ngi koy ñaanal yàlla yóbbu ko Moussa Guy gi ñu ngi koy ñaanal yàlla waaw demoon naa ci dëj bi maa ngi bay guy gi. di ko jaale waaw di ko jaale famille a ñëw rek mbay guy gi ma woo ko rek mooy nit koo xam tamit xam lu mu dugg rek man moom dama ciy dugg parce que man dama duppee boppam ba mu jeex ba damaa dem ba yàgg sax ma ne man man est ce que may mbay guy gi waaw waaw waaw sama léppam waaw di ñaan yàlla yàlla yóbbu ko àjjana parce que tamit xale yi fii comme li ma la wax rek affaire yi man bi ma ci toll liggéey la rek. affaire yi moom même bu ñuy guy gi kii la ëpp yaakaar te liggéey du dem. liggéey la rek liggéey bi mooy tey man écrit bi ma nekk xam naa ko muy école ma faram. Mm. maay tëddal liste bi comme ni ñu ko waxee am na xale yu fa nekk ne am nañ ci ñoom yaakaar mm. mais tey ku ci mel Cheikh Super Jamono vraiment mi ngi def ay mi ngi def ay performance yu baax. performance yu baax ku ci mel ni bébé guy gi tamit xam nga mi ngi ñëw. mooy waaw moo vraiment xam nga. tey buñ ci limee ay nit rek dinañ juum quoi mais. Mm-hmm. waaw bari na ay xale yoo xam ni nga dem tey waalo ay caatu. ci caatu waalo ak Baye Ndiaye. Mm-hmm. ak tey ñaañaa bu ndaw ñu ngi leen gis nga dem fee kii écrit eh, géejawaay nga nga dem Jackson. muy xale bu yaru ndeysaan di ko ñaan yàlla may ko ndam ci combat bi mu jëm. nga jóge fa tamit ñëw eh, fii. Eh, xam naa di nga wër écrit yëpp. kenn rek laa Balla Gaye nga wër tamit ku ñu wax. Euh, ku ñu wax ku ñu wax ku ñu wax caatu Daouda Fall affaire yooyu dama damaa nekk émission ni maa lay war nii ci kanam nii nga xool caatu caatu Daouda Fall nga dem ci caatu Daouda Fall jóge ci caatu Daouda nga ñëw tey ci bébé kii. Euh, eh, taxawal école de li Balla Gaye am naa fa turandoo Modou Anta sans frontière numéro 2. waaw maa ngi koy maa ngi koy suivre maa muy xale boo xam am nañ ci moom yaakaar tamit mais pour pour gàttal rek mënuma lim ñëpp mais am na bu xale nga ñëw tamit ci ci combat boo xam ne bu jaara taxaw la après dinañ ci wax muy euh, fils de Balla ak Gora Sock combat boo xam ni kooku moom dama naa amateur yi ku ci yeex a dagg billet wala ku ci yeex a réservalul sa billet boo xam ni kii dafa kii bëtam dogoo teg ci Papa Sow kii dafa nekk jàmbaar kii dafa naa mi ngi doog a jàmbaar tamit di ñëwaat kon defe naa ni te bu jàppaare jàmbaar di ñëwaat bu bëree ba pare bëtam da koy teg ci Sa Thiès muy Gora Sock kii bëtam mu teg ko ci Papa Sow muy fils de Balla kon defe naa ni ñoom ña kii nekk noo non non Papa laa lay wax papa parce que tey palmarès bi kii def mhm. euh, bi fils de ball def boobu Franc defagu ko kon tegu ko ci Franc mais ci Papa Sow la koy teg léegi nag muy combat boo xam ni tamit dañ naan fils de Balla ndax lim amoon ci général da koo tandu ñu ne tamit góor a soog ndax moom dafa dafa war a génn mm-hmm. wala tey li muy wax li muy wax pour minimiser fils de Balla loolu lu muy wax la wala stratégie la loolu combat la boo xam ne nii Euh, te te te te kii nu mu tuddati euh, jam kii. Jamaïcain Jamaïcain xam nga ni dafa bëri ay surprise yoo xam da koy génn ci làmb kon defe naa ne combat boo xam ne laal incha allah ku lépp luñ ci xaar nañ ko ci gis. mais la 14 août yaakaar nga ne combat boobu dina gaaw ak ni ñuy communiquer ni muy ni ñuy communiquer ñoom ñaar. no Fils de Balla du bëri combat bu yeex Euh, du bëree combat bi yéex tamit Gora Sock Gora Sock laay ragal mu xaar mais Fils de Balle du bëree combat bi yéex Fils de Balle daal laa mën a wax ci moom lu bari Gora Sock champion la man bu ma koy xelal Fils de du ma ko ni man loolu sax kenn du ko di yàq stratégie kenn du ko wax ci kii mais moom dina am yàgg nañ ci làmb biir la mais liñ mën daal comme ni ñuy li ñuy war a def nii mm. suñu dajaloo bi yëpp bu suñu dajaloo mm. moom ci lay gën a amee courage bu soobee yàlla mm-hmm. bu dul bu dul géejawaay mm-hmm. kan nga xalaat ne mën naa téye ji làmb mën naa nekk roi des arènes te dëkkul géejawaay. Serigne Ndiaye 2. Coriace waaw waaw Coriace Serigne Ndiaye xale la boo xam ne vraiment moom moom waxuma la dara mais yar bi yar bi mu ëpp bëri bi te macha allah tous de bois intelligent ba moo ëpp tamit li muy kalkin ci làmb li muy kal bu ngeen toogee nga koy xam Serigne Ndiaye 2 nit la koo xam ni loolu yàgg na. des fois nii bu ma envoyé vocal nii sax dama ko mel ni ko minimiser. minimiser mais nit ki bu yàlla de boole rek man dama tontu ko nii say ma tontu man it xam nga ay détails yoo xam ne dañ koy seq ak moom. Mm-hmm. ñu bokk nekk ci gii olympique. su ñëwee naan may grand guy gi ma ne ko waaye man koy booy. yow jàllal nee rek man ba sama làmb jàll quoi nga naan ay grand guy gi nii ngeen def di ootal nit ñi naan grand guy gi <laughs> mais boobu lu mu gëmoon la. xam na nii man grand laa. Mm-hmm. mais ñu dem di dund di dund di dund di dund di ko amitié di ko amitié di ko amitié ba mujj gi Serigne Ndiaye dafa bokk ci man sama tànk bi amaa may blessé moom ñoo àndoon ci waa ji ko doon faj. waa ji sax waa kooku sax filmé nañu mooy kii def faj ay genoux yeeg tànk yi yëpp mu sonn ci nag. Mm-hmm. barke alxuraan bi ma daanoo ci guddi gi ñi fi njëkk ci la bokk ci ci suba gi affaire bi metti ko. xam nga ba bi may dem États-Unis ba yëpp ñuy déggante bul sàggane lii bul gis na jour bi ma war a dem fii bi ma bëree pare ba war a demaat ci waa ji woo na ma presque quinze appels yoo xam ni gisuma ko woon quinze appels foo nekk maa ngi fii si kër góor gi boo tourné nii nii jël si ñëw affaire boo xam ne mosuma koo gis muy koo xam ni yëg ma te man ku ma yëg moo ma sonal kon defe naa ni kooku am nañ ci moom yaakaar te yàlla bu ko dara yàqal yàlla bu ko cet kooku kooku dafa am yoonu kooku moo moo yëkki ni kiif kiif seen yoon ay mënul gaaw mais na koy cons na koy cons ndànk-ndànk di déglu père Tafa Gueye nekk ci nekk yoon bii moom sax xam na loolu mais yokkaat ko mais Serigne Ndiaye 2 daal laa xam ne fi mu toll nii référence bu ma génnee fii danaa nii làmb bu ma génnee géejawaay danaa nii làmb parce que tey boo nee génn géejawaay tey am naa rak yoo xam ne tey ñu ngi biir ñu ngi biir géejawaay pour ñu tee làmb ku mel ay Sa Thiès tey ay Fils de Balla yi ma tudd ak ñoom ñoom ñëpp ay ñaabu ñoom samay rakk lañ mais waxaale wu ma ko géejawaay mais da ne ma boo génnee géejawaay moo tax waa moo tax man la moom moom laa gis xam ni moom yoon boobu la jël non bu ñu fi nekkee di lim xam nga tey bu fi nekkee di lim ñi mu war a lim bari na am na ay rakk yoo xam ni vraiment xam nga yoo xam ni tey am na benn booy boo xam tamit mi ngi ci àll bi wala mi ngi Cees hmm. te làmb ko war a bàyyi xel muy Laye Gothé. Laye Gothé bu Cees tudd nga champion. lu garaaw nag laa lay wax de. maa ko xam Laye ni nit ñi sóoraale wuñ ko mais. Mm-hmm. champion ngi noonu. wallaahi xam naa ko <laughs> comme li ma la wax rek mook Serigne Ndiaye ak ku Yékini ñoo yem yoon du gaaw mais ndaanaan a ngi noonu bokkuñu sax ci ak comme booy li ñuy bëree wala moom fi mu fi mu bëgg a jëm. Mm-hmm. mais nag doo tay toog li ñu war a lim bëri daal mais daal waaw loolu daal laa gëm ni moom incha allah xam nga. <laughs> Ah, voilà. am na solo dernière question lan ngay conseil Sa Thiès bëri nga ak Reug Reug am nga loo xam ci moom lan nga koy conseil ñu tëj émission bi. non Sa Thiès li ma koy conseil moog Reug Reug du combat bu bu xaar rek rek boo xaaree làmb bu yeewoo rek musiba am du combat bu muy xaar tax Sa Thiès sax bu nit ku ko doon dëy ci nopp bi naan ko xaaral munu ko du nit boobu du nit boobu munul xaar kon nag bu ko kenn xaarloo man moom li ma la wax rek moom li rek rek bëreeg man yàlla na ko bëreeg Sa Thiès lim bëreeg yow lim bëreeg man yàlla na ko bëreeg Sa Sa nag la ñu ñaan yàlla ndam Reug Reug nag amul ku munul daan ci àdduna champion la naan la waxuma ko ngir wax wax ay ah, ndaanaan du ndaanaan tamit gars dañ lay xeeb rek. Reug Reug ndaanaan la. amul ku mu munul daan ci àdduna. Mm-hmm. mais nag mu ngi bëre koo xam ni. waaw doole ji ëpp na jëmm ji. gaynde gu déggul jën. li ma la wax kay du dañ <laughs> li ma la mm. mais li muy bum bum ko xaar. Mm. te buy song na nekk song bu wóor. buy dóor bum gëmm buy màmmi na diree ko wuti ko. <laughs> déggoo ma de. bum dóor ci kaw naan ay loxo yi nii dem non loolu bëriwut ak rek buy dem na ni nii wàcc tànk ah. dóor ba bu jëlee tànk bi mu ko déclenché mbot bopp bi mooy jur tànk doo ko ñëw déggoo ma de <laughs> bu bu ne xoolo bu nii bay dem Sa Thiès moom ñoom boobu man leer na ma bu ne nii bu rëg-rëg ba jël tànk bi bu ko eh. déclenché bopp bopp bi tànk yi moom ci asamaan nga ko si bopp bi suuf Sa Thiès nga mën naa mbot rëg kurul rëg-rëg Sa Thiès mën na laa mbot loolu fooram la moom for noo muy mbotee man noonu laay mbotee loolu fooram la. yow jolal ngay dem da ngay jolal damay man damay mbot bi sama benn boobu bu ñuy wax am lycée maa ngi koy nuyu sama préparation combat bi dafa daw jël ma bi ma ko déclenché mbot dama tiit na ma mbër lii foo ko dencoon ma ne ko man li ma bëri li ma saako jox bëree gu ko bëree gu ma ko am mu ni wax nga dëgg mais mbër lu tax doo bëree mais dama ne la li ma la wax nii man làmb ji mën naa ko liir te bu ma toogee ak moo ko ne lii ngay bëree bu bëree lii incha allah mm. moom duñ ci am gàcce quoi te xamali problème bi mooy mm. gis nga tey di ngemb koo xam ne vraiment dafa complet wala bu ko bu desee tamit tuuti la loolu dafa neex man li ma la wax xam naa ko. Sa Thiès ñi mën a am na respect dina déglu conseil léegi nag li ci des loolu comme ni ñu koy waxee. kii la fóotum biir la ma la. waaw <laughs> sa téléphone bi moom du arrêté mu ko garaawul léegi naa la naa la dimbali rek parce que appel yi bëri na bu ko defee ma may la nga tàggoo. ba ma toogee ba tey quinze appel ñuy commentaire ci seen lamb TV yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne leen ngeen abonné bésu rouge parce que seen lamb TV mi ngi ci ay projet yoo xamante bi ni incha allahu rabbi dinañ def ay plateau bu neexee yàlla dinañ def ay direct dinañ invité nit yi lamb yi champion bi sax dinañ ko invité mu ñëw locale ba dinañ invité aussi tamit expertu làmb yi. paa yi nga xam ne dañoo retraité woon nekk ci làmb dinañ leen invité microcentral yi aussi tamit dinañ leen invité ci suñu local ñu yaatal ak ñoom mais balaa loolu nag da ngeen di yokk abonné yi dem ak ñun cent 100000 abonné bokk gars yi laal leen rouge bi loolu kese la boo laalee rouge bi rek di nga mën a gis vidéo yi champion lan ngay tàggoo sa téléphone bi fees nay message appel yi mat na 15 maa lay siyaar looy tàggoo. waaw moo tax kontaan rek di santaat àdduna yëpp di nuyu sama grand frère la. di nuy waa Louga gi yëpp famille jibi si la yëpp di nuyu Fayam Awa sëñ Xaarim Fallou di nuyu bàyyiwuñu kenn koo xam ne sëñ Saliou bàyyiwuñu kenn koo xam ne vraiment famille jibi si li nga di la nuyu bu baax parce que suma grand la boo xam ne loolu yàgg na comme ko wax maag Balla Gueye loolu sànq sax moo ma ko fàttali loo xam ni moom moom nit la ko xam ni tey ñu doon def taranga bu toogoon rek bañ liggéey rek kooku dañ ko koy fay parce que nit la koo xam ne man xam naa ko bu baax a baax a baax a baax 2012 bi ma daanee Ama Baldé dem Louga ñu éviter ma fa galaaf bi Gaston tëggoon ba ma demee këram ay xar lañ ma defal ay monsieur awa te boobu moom ne ko fi sax ma ànd ak ngaylum vidéo ba tey maa ngi ngaylum sol kos ma caméra ngaylum daa lekk bu tëdd ci tal tal ci kii bi di nuyu sama euh, ki pet ji li sama ménager ngaylum saar saare maawo waaye ko lid moor fa dem yëpp nga baal ma dama seetaan benn interview Père Pape Mbaye mu ne démissionné école démissionné na école de lutte Mor Fadam en tant que champion di tête de file école de lutte Mor Fadam te bi Mor di dund suñu papa Père Pape Mbaye mi ngi woon ci écrit bi est-ce que doo ci dox tànku jàmm pour mu dellu siwaat ci écrit bi wala yëgoo ko. waaw loolu man maa ko doon dégg sax après dañ ma yéen kii bi mu dafay intervenir mais loolu après dañ ci waxtaan maa yow lu bari. Mm. man yu bari man yëguma ko. Mm. parce que tamit man. Mm, nekkuma tey di xam nga di lijjanti yu bëree ak yu kenn xamul man ba ma ñëwee tey euh, gis école bi euh, mu manqué président dama woo Mor Fadam mu ñëw ma ne ko père mu ne man ne ko ñun soxlawuñu président boo xam duñ ko gis fekk am na ku tuddoon xaw ma naan Sylla daam non non daam Sylla daam Sylla bu Louga mu ma daam ma ne ko président bi yow la amal njariñ ah. mais per dama bëgg paate am na ku ñëw ci école bi mook Tafa Ndiaye paate xam na ni paate sama supporter la woon waaw ma ne ko waaw ma ne ko sama sama sama supporter la woon mm-hmm. ne ko léegi moom xam na làmb damaa bëgg léegi nga ñu ñu jox ko président bi mun ma ma ne ko waaw nii lañ ko falee te biñ koy fal man man maa wax loolu moo fa rek mu mm-hmm. ngi ci dëgg maa ngi fen bi mu ko falee ba pare manifesté man dañ koy fal parce que man bugguma bugguma di manifesté ci yenn détails ñu naan day wane ak affaire yooyu booba tey nag ñi ngi doxal mi ngi doxal wax dëgg yàlla maa ngi koy nuyu au booba tey mi ngi doxal xam nga ànd ak booy di liggéey liggéey bu rafet léeg-léeg maa moom sax ñu jàppante ci ay wax ba ci combat bi sax dañoo bi mu jeex dañoo jàppandoo ci yenn détails yi yoo xam ni lu bëgg école bi jëm kanam rek la parce que tamit loolu mënul ñàkk ci ay nit ñu ànd bu ngeen jàppantewul rek kon ànd ànd bi dëgg ànd ànd bi dëggool noonu nag la affaire yi demee li si des nag moom ñi fal ak yooyu yëpp ñoom seen biir la woon mais li nga wax nii man dinaa ci wax woo woo ko laaj ko ba xam nan la demee version yi woo per jili laaj leen après li ma ci war a def ma def ko ci parce que tamit morfam du ñu bàyyi ak poche bi mu réer li ci des xam waaw li des di nuyu waa Géejawaay gi yëpp nuyu waa Asegna nuyu sama gaañ Dara Sarr papaam waaw naa bi yëpp bàyyiwuñu kenn nuy waa Canaba nuyu waa waa Marsa Ndiarème Géejawaay fi ma dëkk waaw waaw États-Unis waaw mooy mooy booy damay far seen tur bi ak waa Kër Ñaseen yi vraiment ñu nit ñoo xam ne daal xam nga aseg naa bi xam nga yaatal la yaatal ma seen bopp daal waaw waaw ma seen bopp parce tamit man loolu laa loolu laa xam man ku ma jox teraanga ma del nuyu sama benn boo xam ni doomu na bu Yirim sama xarit la sama lépp la Yirim di ko nuyu di nuyu famille na bi yëpp vraiment parce que moom jarbaatu président la mais tamit du ñuy dund dund ba rafet képp koo xam ne daal vraiment yaa ngi seetaan site bi site Modou seen lambu TV ñu ngi lay nuyu di la te xam ne bu ñu Modou Anta Seck rek dañuy génne li nekk suñu biir parce que yéene la suñu rakk la moo tax ñu xam nga des fois nag du léeg-léeg yenn si di merama te demeewul demeewul noonu jot gi rek la demeewul noonu. di ñaan Abdou seen waaw kooku kooku dafa bokk ci man comme li ma la wax ci commencement bi rek Abdou Sène mag Guèye na fu ñu foo xam ni vraiment boo bëggee jot rek jaaraloo ci Abdou Sène mu nit la ko am daal bu ngeen jo jokkontewul doo ko xam Abdou seen nit la koo xam ne bu waxee yow da nga xam ni kii moom moom toppee ma ngir làmb moom balaa moom day wax sax mun la bala nga doon xam nangam naa nga bàyyi làmb expliqué ma ne ko non yow yow yow ñaanal ñu rek nit la ko am daal vraiment Abdou Sène di ko ñaan yàlla li mu bëgg ci man rek mooy ma nekk champion moo di ma dégg daal yi yàlla def ko incha allah te ñu ngi ci quoi te te defaat nañu retour boo xam ne incha allah am nañ ci yaakaar boo xam ne yàlla na yàlla mosul ci cat rek waaw boo xam ne daal incha allah moom am yaakaar bu baax li ma wax daal mooy suma grand ama seen waaw comme ni ma ko waxee rek loxo bàyyi noonu <laughs> yaa xam da nga nuyu yaa xam da nga def nii mais su ma sooyoon da nga nuyu ma lañ nuyu ma. bu defee ma ne leen nii siletement bi nga sol <laughs> dina ree dafa bëgg ku nekk ci forme nag. <laughs> non non prend Lamine entraîné kii euh, yow euh, yow Modou Anta. benn la benn la ah. Modou Anta Modou Anta entraîné ma de xam nga làmb tey nañ xam ne làmb fi mu toll muy ñun ñëpp ñun sax xam nañ fi mu toll. promoteurs yaa ngi ñëw ne leen yaatalal nëmbër yi raisonnable làmb ji neexaat su ñëwee ba ci biir nag ba làmb ji xam a neexaat ñu doog a jógaat mais nëmbër yëpp raisonnable ñun boobu suñu côté amuñu problème boobu noonu ki may seet si maag Eumeu Sène fayal Eumeu Sène ba ba ma daan Eumeu Sène ba pare bay ñëw di ko nuyu si naan ko grand ak yooyu expliqué ko doog a jël sa kabul parce que Eumeu Sène Eumeu Sène li tax ma bëgg a bëre ak moom comme li ma la wax rek nit la ko xam ne amul xolu kañaan bëri ngay njëkk gis te bu làmb ji tax loolu lépp jël na ko teg ci suuf. te bu yoxee yow xam ni kii nii jikkoy mbër ah loolu laa bëgg. léegi arbitre siffle nag mu aj loxo ba ca kaw di indi jikkoy mbër di bëgg a yóotoo ak yooyu noonu <laughs> man loolaa soxla. dama bëgg bu ne ciix mën na ko ciix toog ba ci suuf foog sa ànd ak moom non non non moo daal. yaa lu garaaw. moo ma wax bëri combat bi combat bi daa mel mi ngi nii combat bi daa tànkam bi kenn ko laal tamit xam naa tànk bi bu ma ko tegalee comme ni ma Ama signa Ama Baldé signature contrat bi. <laughs> Ama Baldé. nga barke Serigne dinaa la daan nga ne ko jógal ñu mu jug fekk man yàlla jour boobu la may dimbali jox ma tànk droit nekk tànk droit posan la. pot nekk de posan la ma laal ko muy la ma di wéy boo may topp maa ngi ni mel boo ko tàllalee maa ngi jëm mel ni ku jëm ca ba <laughs> ne ko laa ilaha illallah kii de bu jour combat bu ma ko laalul ba si ma ma ne jour combat bi yëpp amaanaan ni ma ko yuuf dina fi yàgg de lii. kenn du ko laal looloo dal ëmb su ma waxee fii dinañ ni man looloo dal ëmb fi ne fi noonu lii bu nee nii tàng fi nii bu nee tag nii dama koy jar bu dama nee kii dama at wax yow naa bañ a bëri ko sinon ëmb sa day delloo combat <laughs> macha allah mi ngi noonu wax dëgg yàlla kontaan naa ci yow trop trop trop champion aussi tamit di la ñaanal wér di la ñaanal gudd fan li nga xam sa carrière aussi tamit yaa ko bëgg di ñaanal mbër yëpp aussi tamit li ñu bëgg seen carrière ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla defal di la jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi wax dëgg yàlla di la santaat bu baax a baax di la ñaanal tabaski bu neex nag passé jàmm yow ak bébé bi ak mbokk yëpp di leen siyaare bu baax a baax mbokk yi di nuyu aussi tamit Abdou Seen suma xarit maa ngi koy siyaar bu jeey seen Abdou Tall aussi tamit maa ngi koy siyaar baax yaay bu Thiel ñoom Keba bu Yankaw maa leen di siyaare bu baax a baax Omar bu Noiro siyaar naa leen di siyaar Kalzu Boy sama caméraman les rois des caméramans maa leen bëgg bu baax di leen jox di daje ba beneen yoon ci seen lamb TV Kalidou jërëjëf.